bismillahi irahmaani irahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa xabibina wa shafiina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati alkiram maali alulama asxaab alsamaha asxaab alfadilati ayuha alsaada asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk te di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balu àq te di leen baal di ñaan yàlla yal yàlla boole jéggal. Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar jaar yonent yi alayhimu salaam da ngeen ci ànd ak seen mbokk oustaz Alioune Mbaye ginnaaw loolu nag noo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di baal ñëpp ak di leen baal di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër di doole ñaan yàlla na yàlla faj aajo yi teggi tiis yi saafara jàngoro yi te jéggale bakkaar yi yàlla na yàlla gën a xeet ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yëgul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu nu am yàlla nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla nu am yàlla yàlla na yàlla gën a teel boppam yàlla na yàlla gën a sàmmal boppam yàlla na yàlla gën a aaral boppam bi jaay si lu wujudi wa lu jàmm yàlla mu néew ak mu bari yal na ko yàlla nangu te fulandil nu ko lu mooy yàlla mu néew ak mu bari yal na ko yàlla jéggal te suturaal nu àdduna ak alaaxira bi jaay wujudi eh, mbokk yi noo ngi beral nuyoo nag ñëpp suñu soppe yëpp suñu am di jàmm yëpp tabaarakallahu ni ngeen ko bëggee incha nañ ko defee noonu di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam di nuyu waa bitim réew di nuyu waa États-Unis di nuyu mbooleem ñi nga xamante ñu ngi ci diaspora bi kenn ku ci ne fa nga nekk ñu ngi lay fekk di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ñu ñëw ak yéen ci fanu yemoon ak yéen ca ajuma jéenu génn mbokk yi gis ngeen ni yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam baay bi fal na ko ci àtte boobu nga xamante ne àtte woon na ko ci wàllu lit contre la pauvreté gis ngeen na nga xamante ne nii noonu la ci Souleymane taxawe muy àtte bu rëy ginnaaw ba ca leen wax ni sama borom kat nee na sama doom jii di mooy toog sama place fa tabaarakallaahu ñu ne ko nag sa doom ji bala muy toog suñu place sa place day fekk mu am xam-xam waaye ku amul xam-xam du ñu mën a jiite duñu topp mu ci ginnaawam waaye bunaa Israël nag euh, ñu mën a diingat lañu waaye tam mën nañu leen a comprendre ndax itam diingat positif euh, moo gën diingat bu négatif. Euh, ñu ni ko nag bala muy doon sunu njiit ñu topp ci ginnaawam danañu ko laaj moom laa doon wax ajjuma jee paase di ko laaj lan moo gën a jege doom aadama ak lan moo gën a wéttaliku ak lan moo gën a wéet mu tontu leen tontu yu rëy yoo xamante ne ñoom ñëpp dañu mujj wedam ndax tontu yooyu mus ñu foog xale bu tol noonu di Suleymaan alayhi salaam ndax dafa leen ni alaaxira moo gën a jege doomu aadama doomu aadama loo gën di dem rek di gën a jege àllaaxira waaye loo fi gën di yàgg rek di gën a sori àdduna ndax bis bu la xasaraw rek boobu la bis wéy na waaye yonent yàlla Suleymaan ñu ne ko wan yar lan moo gën a wéttaliku leen li gën a wéttaliku lay mooy yaramu am waxoon naa leen ko mu ne leneen moo gën a wéet mu neen li gën a wéet mooy yaram wu tàqalikoo ak ruuxam foofu lañ yemoon nag ajjuma jee paase man lay wax ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna fil jasadi am na ci doom aadama yi ci yaramu doom aadama lumb boo xamante ne wala cir boo xamante ne nii isa saluha saluha al jasadu kulluhu wa in fasada fasada al jasadu kulluhu su baaxee lépp doomu aadama bi baax na waaye su bonee lépp doomu adama bi bon na alaa hiya al qalb te loola mooy xol moo tax yàlla dëkkul fenn ci doomu aadama dëkkul ci lenn doomu aadama lu dul euh, ci xol te xol tam li koy alimenté mooy ruux moo tax suñu borom subxanahu wa taala su su doon day dëkk wala bu bu doon gane si doomu aadama wala mu doon kuy wàcc ci kaw suuf xajul ci pale bi xajul ci suñu salon yi xajul ci fenn yàlla ci nit la xaj te ci nit itam xajul ci poosam xajul ci dën ci dëndam ci xolam la xaj yàlla ci xol la xaj moo tax mu ni xol bëgguma fa dara. lépp lu ma ñëw fekk xol euh, am ko duma fa dugg su ma toogee tuut dara fekk ma fa tam fa dugg moo tax xol yàlla rek lañ fay def xol yàlla rek lañ fay denc kenn du bëgg leneen du paase yàlla ndax keneen koo bëgg wane leneen loo bëgg loola bis dana jot ngeen tàqalikoo ba mu des yàlla te nag yàlla bu choisir xol ni fa laa dëkk bu ma fa fekk kenn wax dëgg yàlla ñu mën ko koo nangul ndax daanaa koy faral di wax ci conférence yi léeg <clears throat> soo jëlee sa kër soo jëndee sa kër kër googu nga defar ba mu jeex ba mu baax def R plus deux wala R plus trois tabax ci kaw ba mu baax defal sa courant ak sa ndox moonte yi nga ci war def yëpp mu am wifi ak tout woo say njaboot yëpp ni leen nag dëkk leen ci kër gi bu leen fay ndox bu leen fay courant waaye nag liggéey leen. tey dunde man nag soxla ma fi dara waaye li ma fi soxla mooy pantre bi nga xamante ni mooy sama pantre mooy sama néeg bi ñaan naa leen rek ngir yàlla néeg bi bu leen fa dëkk bàyyi leen ma ko fi muy pantre bu ne ci suuf waaw ñu bàyyi ba ba ba borom kër gi dem ñu jël pantre boobu mu ni néegam la bu ñëwee fa lay fa lay noppale ko ñu defa yar ay ganaar wala ñu fay def ay nen ay poussé poulain yu demee noonu est-ce que loolu dana neex boroom yow mii may déglu nee nga déedéet du ko neex noonu la sunu boroom suñu diggante sunu boroom noonu la demee sunu boroom bax na la bët ni la xoolal fu la neex waaye nag boo xool lu wax araam jox na la nopp ni la déglu jox na lay tànk ni la demal jox na lay loxo ni la di jëfandikoo jox lay nopp ni la del dégg lépp sunu boroom jox la ko laaju la facture fayiwu la dara mu jox la awra yaa xam góor nga wala jigéen mu leen na def ci lu lew def ci li ma ci santaane ma def ci njaboot gu barkeel ëllëg boo fi jógee ñooñu ñooñu continue mission bi yàlla kay jaanam wàcc na mu ne nag cër yooyu yëpp mën nañu def lu nekk mën nañu dem fu nekk waaye nag ba mu des xool xool moom maa ko moom bu leen ko jox kenn bu leen bëgg lenn bu leen ma fa dëkkal ak keneen nga bàyyi ba yàlla jox la loolu lépp ngay wax ci keneen wala ngay giñ ci leneen wala nga jàpp leneen wala nga bëgg leneen wala ngay jooy ci leneen loo xamante ne mbiri àddina jooy ci xaalis jooy ci ndomba tànk gis naa ko dee ci pouvoir ku ñu rey ci pouvoir ngoog ñu rey ci pouvoir gis naa ku ñu rey ci xaalis gis naa ku rey nitam ci xaalis kooku kon la mu bëgg ba rey sa ba daaneel sa bakkan kooku yàlla rek ko waroon jar waaye bakkan ba nga daaneel ngir àddina loolee tax nga daane ko di nga fi yàgg lool lool di wéy te dootu ci man dara te boo demee ne bàkkaar ba nga fa di la xaar moo tax doomu aadama dafa war a xool digganteem ak boromam. yonent yàlla Suleymaan nag alayhi salaam moom tontu bu rëy boobu moom la tontu ni leen loola de mooy euh, mooy ruux ma leen di wax nag ni la doomu aadama li nekk ci moom ba ñu koy naw mooy ruux sunu borom subxanahu wa bi muy bëgg bind koko ko représenté ci kaw suuf ndax sunu borom nekk na fi lu yàgg dara xewul dara amul dara yënguwul suuf amul asamaan amul géej amul ngelaw amul garab amul dara amul fi yàlla képp kot dong moom dong moo fi nekk waaye nguur soo bëggee mu neex dangay wuti géwél ñu lay tagg ak ñu lay way ak di lay jaamu boobu la nguur di neex sunu boroom nag e, bind bind ci ci jëmi boppam e, jël ci leeru boppam bind Muhammad sallallahu alayhi bind ci leeru boppam moom la moom la boroom xilaas ba di wax e, wa innahu iz araada allahu nachatana abaana min nuurihi nuura nabil alami ma ngoo mooy li nga xamante ni moo ci am euh, tabaarakallahu yàlla bind leeram jël ci leer boppam bind Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeru Muhammad googu alayhi salaatu wa salaam moo jaamu yàlla na ko yàlla bëggee moo jaam leer ngay jaamu sunu borom di jaamu sunu borom fukki junni at ak ñaari junni at douze mille ans yoo xamante ni leer googu subhaan rabbil aala subhaana rabbil ala moom lay taggee suñu borom di tagg suñu borom changé wul position changé euh, bàyyi noppaluwul ba mu ba fukki junni ak ñaari jeex mu jëlaat beneen faculté onze mille ans jóge ci onze mille ans jëm ci dix mille fukki junni at juróom-ñeenti junni juróom-ñetti juróom-ñaari junni juróom-benn junni juróomi junni ñeenti junni ñetti junni ñaari junni benn junni ba mu ne tël nag suñu borom wax ni ko nag dootuma la mere te fay gi ma lay fayee. mooy bind mbindeef yépp ci sa jëmm ji moo tax lépp ci leer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuurun min an nuuri qad awdaatu xikaman tafiidu faydan al axlaaqi allah ngoog borom borom borom borom wasilatul munaa moo jaar foofu leeru leer googu la topp googu leer nag mooy dem di dem di dem di dem ba yàlla bind ci safaraak àjjanaak kursi yoog law xoo yeeg lépp ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la yàlla bind suuf ci la yàlla bind asamaan ci la yàlla bind biddiw yi ak weer wi jant bi yëpp ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mun soob yàlla yàlla woo malaaka yi di leen dama bëgg bind nag planète boobu ñu wax teer dama bëgg ku ma fa représenté te la malaaka yi nag jug ndax boobu ñoom itam yàgg nañ fi te nit ñëwul waaye eh, seen patron nag mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lu nag moom kenn du ko bind sallallahu alayhi wa sallam ci nag ah loolu day <laughs> lu ñuy lijjanti la dajaal fiihaa man yufsidu wa yusfiku dima ñun tamit planète boobu miin nañu ko di danga fay def ñoo xamante ne dañu fay yàq ak di tuur deret ak raykati nit suñu borom ne inni a'lamu ma la mais li ëpp solo te ëpp solo nag te wax ji tax maa jóg mooy dafa li leen ne isaa isaa sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi faq'u lahu saajidin su ma ko bindee ba mu jekk dinaa jël li bokk ci man ma def ko ci moom te bu boobaa na ngeen ko sujjootal faq'u lahu saajidin na ngeen ko sujjootal na ngeen ci suuf ngoog tabaarkalla ba loolu amee mu dal di nag bind maam aadama nag di ko bind di ko bind di ko bind waaye la ci ëpp solo ba maam aadama pare suñu borom dafa jël roo xam nag def ci moom looloo tax ñu naan la nit ki mbi alxalqu kum alxalqu kulluhu mazahirullah mbindee fi yàlla mbindee fi yëpp yëpp jëmmi suñu borom yu taxaw lañu damay bañ a sori sax loolu mais booy bind doomu aadama ni mu taxaw sax dafay taxaw taxawaayu allahu liif laam lam ar saqeer mooy soixante-six sa ñaari tànk yi liif la ndigg li di di ak di di di ñaar liif maanaam sa toogukaay di liif gi ñaar tànk yi di ñaari di ñaari laam yi bopp bi di ar saqeer day taxaw taxawaay allahu même sa ñaari loxo yi sax dafay taxawee li mu soixante-six di allahu ndax juróomi baaram yi day taxaw taxawaay allahu ma ngoog ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni tabaarakallah dama di bañ a dugg ci beneen mystique wala beneen mbiru jàmbur eh, waaye rek ñu xam ne ñun ñëpp doo allahu la ñu taxawee ah kon nit la ëpp solo ca moom ba malaaka yi di su sujjootal aadama mooy ruux gi moo tax ruux dafa war a sell ci laa doon daaneel nag bala wax ni la ñu bari ci suñu mbokk yi mën nañoo sonn ci matière waaye matière taxul woon yàlla ni sujjootal leen aadama matière nag mooy kawar gi bopp bi bët yi lex yi peau bi nangam nangam yi ngay gis ci publicité yépp defar der la defar peau dermatologue defar sa der ba sa yaram rattax mu liis mais bari na yaram warul rattax ba ndang ba ngay seen borom di ko xool fekk xool baa nga ñuul kukk war roog a taq ndax jëmm joo xamante ni jomb ngaa toogal yàlla trente secondes wala trente minutes ci barab jëmm joo xamante ne sa xol attanul toogal imaam ci xutba may ko mu daaneel ci quinze wala vingt minutes yu mu def xutba bala nga fa jóge sa xol tàng jiir ndax nan imaam yi dañuy guddal jëmm joo xamante ne jomm nga taal sa rajo dégg ci koy wax yàlla nee na musique la gënal waaw mbalax yu tar nga yokk ba mu sës jëmm joo xamante ni buñ nee nañ ne wootee waxtaan li nga jëkk a def mooy euh, taalub cigarette wala nga def loo xamante lu araam la pour mën a am inspiration donc yooyu yu doy waar la yoo xamante ni kenn xamul noo koy noo koy lijjante boo xam daal yàlla lu mu bëgg mooy ngeen góor góorlu toppatoo ruux toppatoo ruux yi ba ruux mel na mu war a mel ruux jubóog suñu borom subhaanahu wa taala lu nit war a bàyyi xel la ruux moom yàlla di faye nit ruux mooy lu jóge ci yàlla te lu jóge ci yàlla warul tilim lu jóge ci yàlla warul salte lu jóge ci yàlla warul ñaaw alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub waaw tudd yàlla mooy purifier am tudd yàlla ak dem fu ñu tuddee yàlla ak fekk fu ñu jàng alquran ak di julli julli guddee gi naafi la mooy saabu bi nga xamante ne mooy fete sa yére bi nga xam dafa tilim ba mënoo mënoo dem ca ca ca ndaje ma saabu bi bii fóot ruux bu ëllëgee bu ruux yi dajee yàlla boole ko te ruux yam wax yaa ayyatuha nafsul mutmainna turjii ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati ruux la la koy setal ba mu mën a bokk ca nafsul mutmainna mooy zikrullah tudd yàlla zikar astaghfirullah jàng alquran naafila guddi def lu baax saraxe doxuk bokk loolu mooy mooy tax sa ruux gi su ko malaaka yi jëlee mën a delluwaat ci sunu borom subhaanahu wa taala waaye bu fekkente ne yow da nga nekk jëmm joo xam ne li ngay sonne lépp mooy am tëgg am fecc seetaan xawaare seetaan ndaje ah, làmb yu ni mel solo ba jekk dem ca làmb yu ni fang ngay sol mbasin bu nga dëppee caméra bi ñu xam ne kii lu cher la jar lu riis la jar ngay perte temps ci loo xamante ni doo ci am tuyaaba alaaji bu saaxo radiyallahu taala anhu daawoon wax ni nit lu mu bañ bañ bañ boppam warul àgg nag ci fay ñu duma la fay ñu duma la ñu ni ko saaxo lan mooy fay ñu duma la mu ni mosagoo dégg mukk jàkka ja ñu fay woote naan ku julli si jumaa na nga indi ñaar téeméer wala ju ñu ni wala ku julli si timis na nga indi ñeent fukk soo koo dégg jàkka ji fii sabilillahi gratuite la doo fay dara waaye la nga fay jëlee ngërëmal yàlla ak tuyaaba ju rëy ak bàmmeel bu leer ak bàmmeel bu wéttaliku ak deegu sedd gu woyof gu la yàlla gërëme te ñun ñëpp xam nañ daañu dee ndax new yi ngeen romb yëpp ak armée yi ngeen romb yëpp ñu ngi leen miix ci biir kenn xamul ñu fa nekk te lu mu yàgg-yàgg ñu leen di fekki kon lii ñu wax dafa dafa dafa dafa a gëm fay ñu dugal nag mooy làmb ja ñu ne tey jii la diw ak diw di bëre wala ñu tey ligue des champions nangam ak nangam 14 heures nga dem euh, première heure bu dee bu dee ligue des champions wala bu dee match nawetaan nangam nangam la première heure 14 heures la daan tàmbali ma tey xam dara nga dem 13 heures tusbaar gi doo ko julli nga fay. lu seer dagg billet di yuuxu di yuuxu ba timis loolu mooy fay ñu duma la bu boobu diisee nee na nga jël ñu ni tey euh, artiste sàngam mooy woote place sàngam ndax duma ma sax tudd dëkk ndax mu mel ne dama am ko may wax waaye dans le cadre général ni ko suñ mbokki artistes di defee léegi nga dégg xew bis bu mag ñu publicité ko daanaka un mois waaw entre cent mille francs entre cinquante mille francs entre nangam nangam nangam puis consommation wala boog sax kuubal ak nangam nangam nga calculer ko mu sa muy sa nga ci génn guddi nga dem yàq ka fa romb nga ñu xiif romb nga ñu mar romb nga ñoo xamante ñu ngi tëdd ci mbedd mi ndax fa nga jógee ci dansen boo jaaree ci biir capital bi te ngay gis ñoo ñu ngi ci territoire yi tëdd boo demee ci hôpitaux yi di nga ci gis ñoo xamante ne ni ordonnance bi six mille francs tënale di nga gis ñoo xamante ne nii moom daal mi ngi noonu rek yëf yëf yaa ngi noonu yëf yaa ngi noonu kon su ko defee ah ñu bàyyi xel suñu bopp xam ni sonn ci matière sonn ci ruux moo ko gën ñun ñëpp dañuy sonn ci matière kenn ku na ci ñun yére boo sol moo la gënal. Euh, toogaay bu yàgg ci ci ci zikar wala ci naafila te nag bu ñu fàtte ni la la la xadis ba wax bu ñu fàtte ni àdduna na nga ko wut ba mu defan ba nga defee dootu fi jóg waaye tam bul fàtte sa àllaaxira jaamul yàlla ba defee ni suba ngay faatu waaye jiital àdduna rek soo coowee àdduna sooy xuloo àdduna la sooy xëccoo àdduna la saa woo sole saw dal di dem àdduna la tax a jóg boño xetu àdduna méddum àdduna ndomb ak tànk xaalis ñetti dërëm am na ñoo xamante ne fu ñu mën am ab dërëm lu mu guddi guddi jaral na leen taal oto dem am ñoo xam ne fu ñu leen di tuddee wala fu ñu leen di tàggee wala fu ñu leen di bàkkee lu mu guddi guddi ñu dem fa baatare yi ngay gis ñu koy wane ci yenn jotaay yi yooyu yëpp nit dangay ngay sa bopp xam ne mag du ndax boppam soo dundee ba am juróom-benn fukki at wala nga dund ba am juróom-ñaar fukki at lépp luy mbuux ak lépp luy àddina da ko war a daw képp koy àndal bu jëmul ci yàlla ba ko ndax àdduna am njuuy la waaye am juróom-benn fukki at soixante ans weex tàll bi jaaw toog ci géew la ngay wax lépp àddina tax nga di ko wax luñ la ca jox loolu jaru ko kenn ku ne war nga wuti way man de gis naa bu yàggul benn artiste malheureusement sax xëy na boole wuñ ko ci jullit yi boog du woon jullit mais loolu de aw njàng la wax ne ni mboolem ñi yëngu ci wàllu àddina war nañ ko war nañ ci jàng lu rëy ndax am yenn at yi dem ba wéeratoo dee ci ci kaw spectacle këpp ñëpp di la xool dëpp la caméra yi nga dee ci kaw ah wàññi ko jot na de. ñu wàññi ko jot na de yéen ñii jullit day te yëngu ci wàllu woowu suñ ko su leen koy suñ ko yàlla man loo ñoo ngi leen koy ñaan ku yegg ci juróom-benn fukki at yegg ci soixante ans ba yegg ci soixante trois ans xamal ni ki yàlla yónnoon ci yow mu Seydina Mohamed day soixante trois ans la dundoon te ko dund lu bari des a tuuti di leen wàññi di leen wàññi te dellu ci yàlla chaîne dañ koy bàyyi ñii football sax dañu dem ba yàgg ñu jubilé bàyyi. waaye musicien weex fur ak bi jaw weex tal taxaw ci tool ñuy sët di la foo naka euh, barkeeloo nga defee ne sag la wala nga defee ngërëmal yàlla wala nga defee ndam nga yaa ngi nax sa bopp am na foo xam ne boo fa tolloo da ngay bàyyi àddina bala mu laa bàyyi looloo gën toll ca man ko te defoo ko mooy ndam mooy sag waaye bàyyi ba mën a kooku ñu lay jàppoo di la kubur kubur sa tànk yi daanu ñu naan góor gaa ngeeg wala sunu maama ngi moonu jàngal lii nangam nangam nit ñi lu ñu la mënal mooy sang la sang suul la dem ñibbi seen kër bàyyi la fa nag ak yàlla boo nekkuloon ci ngërëmal yàlla nag boobaa yuux du fa am njariñ woote kenn la ndax ñi lay tagg ak di lay fóon ak kenn ku naan suul ma ci sama ko dégg xanaa mu waaye suul ma ci doo ko mos dégg kon na dellu ci yàlla jot na wàññeeku jot na àdduna am njuuy la te loo xam ne kenn ñaanul kenn ñaanu yàlla dee ca ñu ngoog kon ruux ñu sonn ci def di toppatoo suñ ruux di ko lijjanti bu baax a baax a baax a baax di ko sellal sooy jàpp rajo Sud FM seen jingal boobu ñuy defi tàggee musulman mooy yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fa duxuli fi jannati yàlla na ko yàlla defal ngoog mbokk daal ni yonent yàlla Suleymaan Euh, euh, ñëpp buy Souleymane tonto tontu yooyu daal ni ñëpp daal di yëngal bopp xam ne ah xale bi kat xale la waaye tontu na laaj yi mu ngoog foofu nag fa la yonent yàlla Daawuda mi nga xam ne moo jur Souleymane baayam daal di jóg yéeg ca kaw muñ mbar ba di xutba bàkk sunu borom subhaanahu wa taala kañ yàlla ci teraanga ji ko yàlla defal ak jiit gi ko yàlla jiite delloo ko li mu moom daal di neen nag inna allaha yaamuru nii an astaxlifakum suleymaan yàlla kat digal na ma ma bàyyi suleymaan pouvoir bi transfert ko mu yor ko man sama nguur fii yam jeex na ngoog Souleymane nag eh, Daawud daal na kon su ma fi jógee na ngeen ko jiital topp ci ginnaawam te bañ koo fakkatal te ngeen ànd ak moom yéen waa banu Israël dégg leen li ma leen wax mu ngoog kon mbokk yi Suleymaan donn na Daawuda muy baayam donn na itam nubu wëgga mu ngoog nga xamante ni moom la yàlla di déyanteel di ko wax doon itam mamlaka ba doora doon na géñe go ndax donn sa baay ndam la waaye donn xam-xam ba ak donn responsabilité ba donn cër ba moo jafe ndeysaan daawud nag ndeysaan tegaatu ci dara ay fan rek dal di faatu mu doon noonu yonent bu marke jamonoom bu marqué époque ni ko gars yi di waxee moo tax am na benn waykat bu arab nee na iza xamalta ila al qubuuri janazatan fa alam bi annaka maxmuulun bi faalim bi annaka baadaha mahmulun bu dee bis bu nekk rek ñu tàggale nit rek ñu sang ko sang yóbbu suul sang sang yóbbu suul sang sang yóbbu suul nee na bis dana jot rek ñu mujj la sang suul yow tam rek mu ngoog kon nag ku nekk na nga bàyyi xel ni su ko ku nekk sa bis a ngi ci bis bi sa bis a ngi ci bis yi mu isa wullita umuura qawmin muddatan faalam bi annaka anhu maamurun soo méngoo ay mbir méngoo mbir ay nit xamal lu mu yàgg-yàgg bis dana jot ñu méngu say mbir yow itam mu ngoog kon yonent yàlla daawud alayhi salaam dee folli na ko dee mi nga xam ni mooy ràppal kër yi dee mi nga xam ni mooy folli buur yi di loo kër yi di euh, tënjiloo jigéen ñi dee moomu di tey ñëw na foll yonteel daawuda alayhi salaam saan waaye nag doomam jooju ñuy wax suleymaan donn na ko donn gu rafet gu wér moo tax alquran alquran di wax naan walaqad aataynaa daawuda wa suleymaana ilman wa qaala alhamdulillahi lazi faddala ala kasirin min ibadihi niin mu ngoog mu mel ni kon xam-xam mooy jiite am réew alxuraan ni wax ni jox naa daawuda ak suleymaan xam-xam xam bu wér wa qaala ñu ni alhamdulillahi lazi ñoo ngi sant yàlla ma nga xam ni faddala ala kasirin min ibadi min ibadi al ñu ngi sant yàlla ma nga xam ni moom moo ñu baaxe moo ñu dimbali ba nga xamante ni bu euh, euh, baaxee nañu xam-xam may nañu xam-xam ba nga xam ni xam-xam boobu ci lañu ñu mën a yilife àdduna bi mu ngoo ko ngeen baal ñu mbokki ci buri boobu mu mel ni xam-xam mbokk yi mooy jiite aw nit soo bëggee jiite da ngay am xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni man araada dunia fa alayhi bil ilmi wa man araada al man araadahuma maan fa alayhi bil ilmi ku bëgg àdduna jiital la ak ndomb tànk ak palgurul jeex nee na amal xam-xam nee na ku bëgg alaaxira ak àjjana ngërëmu yàlla nee amal xam-xam nee na ku leen bëgg boole nee na amal xam-xam ndeysaan moo tax sëñ Babacar Si arif bullah ba nitu yàlla ka eh, jokk ba muy joxañ baayam ba Seydi Hajji Si radiyallahu taala anhuma dafa ne ko ankaxta ilman amalan waaw daf ko ni yow baay yaa sëyloo jànku xam-xam jëfe ko Seydi Hajji ni ko eh, jànku xam ak waxaan baaneew jëfe ku leen sëyle daañu jur doom joo xamante ne buur nguur gurul jeex àdduna ak àllaaxira la tabaarakallaahu mu nekk nag eh, wax dëgg yàlla wax ju rëy wax ju riche waaye bëgg jiite doo jàng bëgg nañu ma falte doo jàng bëgg teg yëpp ci wax ak lëre ak dribble ak wax joo xamante ne wax ca kaw wax dëgg réer comme ni mu xamee ci comme ni mu xewee ci suñu pénc mi léeg-léeg nga gis ay xale yu tuuti toll ci jàng seen bag sax leeragul bac li cinq sax am guñ ko am guñ benn culture di xëccu jiit nekk ci parti politique yi di waagar waagar coow li ñu kur te loolu li seen cër ñëwagul seen cër nga ca kanam ndax mag ñi buñ fi jógee nekkat buñ fi nekkatul yéen fi war a nekk te nit du wat du yàkkamti cëram sëñ Abdoulaye Mbacke mu baax mi day daawoon na wax ni daraja day boo ko gàttandoo mu dëpp daraja kenn ko gàttandoo nee na booy yóotu fi nga fi nga taxaw dëgërul mën ngaa dem ba teg sa loxo ci li nga yóotu nga ànd ak fi nga taxaw yëpp ne bu ci suuf yàlla nu ci loolu kon mbokk yi e, e, mu ngi yëf yaa ngi noonu e, Souleymane ndeysaan doom ji doon na ko ak xam-xam xam-xam bu rafet sax xam-xam bu rëy rëy rëy boo xam ni tabaarakallah kenn mën ko contesté moo tax Daawuda Souleymane daawoon na ñaan xam-xam yàlla yàlla nga ma dolli xam-xam daawoon na ñaan tam yàlla yàlla nga nu may jàmm daawoon na ñaan njéggal daawoon na wax ne rabbi ixfir lii wahab lii mulkan laa yanbaghi li ahad min baad yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla yàlla nga jéggal sama baay yàlla yàlla nga may nguur goo xamante ne kenn dootu ko am sama ginnaaw nguur gu landi goo xamante ne tabaarakallah daana ko wax nag innaka antal wahhab yow yaay yàlla yow yow yàlla yaay buur bi nga xam ne yaay mayaa kon bi te koo may dootul ñee keneen ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ni euh, nguuru yonent yàlla Suleymaan li tax mu rëy dëgg dëgg dëgg mooy sunu borom da koo tànn da ko da ko da ko tànnloo woon ñett waaw da ko tànnloon ñett dafa tëraloon ñett ni ko ñett a ngi nii jëlal ñett te mooy xam-xam ak alal ak nguur yonent yàlla Suleymaan daal di jël xam-xam suñu borom daal di koy tàccu nag ni ko ah wax nga dëgg de suñu borom bég ci moom lool ndax xam-xam mooy mooy tungoom lépp xam door a wax xam door a jëf lu am solo la ba ci diina ji ñu nekk sax nit ñi dama eh, yow Oustaz man dama dama doon julli bon dugg nga ci mbooy gi xam door a jëf xam door a wax dinaay faral di wax ñu bëree bëri nii ñu leen di dékk micro ñuy wax gis nga jamono boo toogee ci mbooloo ñun la waxal te fekk jëkkoo wax ji joxeel ngànt lu am solo la boo jekkul wax ji rek joxeel ngànt su occasion wax teewee te yow mënuloo wax bàyyil waaye yaa fi sa yaay war a wax rek nga wax dugg ci ñax mi wax tuux yi doon goo xam ñëpp dañ la fay doxee xeeb loolu tam jaaduwul wax des koy wodd wax des koy xam te loolu c'est très important mu ngoog xam-xam moo war a jiitu alal soo amee alal te amoo xam-xam boroom xam-xam ñëw nax la moo tax tubaab du fay doole du fay xaalis tubaab xam-xam lay fay soo gisee ñu ñëw fii ci Afrique topp sunu artistes yi topp sunu maam yi topp sunu géej gi topp sunu dëkk yi di nga dem ba ca dëkk sàngam fa àll ba gën a kawee naaj ko gën faa tàng nga fekk fa ay japonais yuy jàng wolof tuddee seen bopp ay caane ay kumba ay xurëja tur yoo xam ne suñu tur cosaan la ñu koy tudd te yow doo xam ñoom dara daañu fi nekk fexe ba jàng wax fi nga def maa ngi fi rek deexin bépp laalo laalo nettataw façon yooyu nga gis nga def ay réew yow ngay leen di jàngal te duñ la jàngal nga leen di jàngal ba ñu mën a wax sa wax xam sa culture te yow doo xam ñoom dara moo tax xeebuñu xam-xam dañooñu ay missionnaire lañu seen réew leen di fay xaalis bu bari garante seen njaboot garante leen ñoom ñëpp ñu ñëw da tax xam-xam dafa dafa foor xam-xam lu foor la xam-xam dafa foor te nag tabarakallah il faut que ñu fonk xam-xam nit ku weex fonk xam-xam ndeysaan boo gisee ñoom ni ñëw suñu géew yi di fecc sol suñu yëre yi di yor suñu sabar yi di tëgg yooyu yëpp dañ ko doon ndax jamono day toll foo xamante ni xam lëf moo gën nga réere ko waaw xam lëf moo gën nga réere ko kon su ko defee ah xam-xam a ngi noonu yéen yàlla Suleymaan a ngoog mu jël xam-xam ba ngoog hmm. waaye maa fi sa sëriñ te amoo xam-xam <laughs> loolu musiba la sëriñ Abdul Aziz Al Amin ibnu Cheikh al Xalif sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu ndeysaan maa ngi dégg muy nettali benn waxtaan wu am solo nee jenn waaye daal e, nee na baay bi imaam la woon ndeysaan waa ji nag topp boppam rek di taxawaalu di taaxuraan di band waaye nag comme Sénégal moom nit ñi aada la ñuy topp waaye duñ topp charia ah baay bi faatu nag ñu di wër ba gis ko ni ah musiba am na ah ah sa baay dee na moo nekkoon jàkka ja di jiite ah ca ñëwal gaaw ñu lijjanti ko indi ko sango ko solo ko gërëm bu rëy mu toog ci digg ëtt bi nit ñi di jaale ku ñëw ay sigil ah sa wàll waaye ah mu des nag jàkka ji mu war a jiite mu gis benn borom xam-xam fexe ba lijjanti ab faatiyam <laughs> xam fu mu ko lijjantee lijjante ab faatiyam daal faati bu taq comme timi euh, tusbaar moom la ngay yaru la ngay wax moom yaa ko xam ak yàlla tàkkusaan noonu nee nañ mu dese ko timis gi nag mu woo waa ji waa ne ko xoolal soo xasee ba ñu wala daalina soo nee xaaf xam nga benn araf la <laughs> mais ah, borom xam nga am na ci ñoom la mat na aaya boo ko nga sëgg bu defee beneen bi nga naan nuun wala nga ni saat wala nga ni yaasiin ah bu defee rek julli gi mat li des nga gaawantu bala bala la ñi découvrir bala nit ñi comprendre nga jàng leneen saa waay julli tisbaar nit ñi daan ah mu dee yàlla na dugub bari ah tabarkala mu de saa waay nangam nangam mu de jàmbaar la tàkkusaan ñëw mu daal di def ñeent rakk yu normal taaye ci diggante bi seen asalaamaaleykum nosol ah xarkal ñu ne ah saa waay mu nekk doon xeeb waaye jàmbaar la timis jot nag. mu ñëw ci jàkk ji ñu liqaamal ko mu allah jàng faatiha alhamdulilah naaral ko nosal bakkan bi damm bakkan bi ba nuroog waa <laughs> miro nuroog waa màkka ji ni amiin di bëgg a toj nag mu fàtte na lañ ko waxoon xaaf mu fàtte xaaf fàtte nuun fàtte yaasin taxaw taxawtu beeg mu ni xuuf <laughs> déedéet ñu ne ko subhanallah mu mu ne xiif ñu ne ko subhanallah <laughs> mu ne mu daal di xaax <laughs> ko subhanallah tabarakallah bi ñu laa da bi ñu laa comprendre <laughs> la jaar ca fenêtre ba ni mes ba démb ci ngoon ñëwagul fa la jaara fa la jaara gàddaay maa xala xamoo ba pare bëgg a lu dafa dafay dal ñu bare bare bare bare mu ngoog kon yàlla na yàlla dafa ko jàmm mu moo tax nee nañu xuyirali suleymaana bayna al maali wal mulki wal ilmi waxtaar al ilma fa utiya al wal maala wal ilma sunu borom tànnaloon na yonte yàlla suleymaan alayhi salaam ni ko tànnal xam-xam ak alal ak nguur yonent yàlla Suleymaan jël nguur waa di jël jël xam-xam yàlla daal di kontaan ci moom jox ko ñett ñett yépp waaye lam tuskar fil quraan daawatuhu fil qawmi wa mawqifu wa nag indiwul benn yoon yonent yàlla daawud alayhi salaam euh, ci wooteem bi ni mu ci taxawee waaye tam aw xeetam di waa banu Israël tam waxul ñoom ci wàllu jaamu ibaada gi nan lañ ci taxe woon waaye alquran li mu indi rek mooy ay jagleem ak ay teraanga yoo xam ni sunu borom subhaanahu wa moo ko ko jox muy miracle yoo xam ni dafay dëgëral wooteem euh, di dëggal tam puy soom bokk na ci ay mayam nga xam ni yonent yàlla Suleymaan bokk na ci xam-xam bi ñu doon wax ak may ko suñu borom may ak àtte gu mën a àtte ñaari jigéen bokk nañu wasin ci benn maternité léegi nag kenn ki dafa sant Samb kenn ki sant Cissé bi yàlla dogalee ki sant siise wësin mu tëre di lool moom moom ndax dafa am ci jigéenam ñoo duñ tëdd normal dañuy juutu wàññeentu fu ne ñu wéqal fa fu ne nangam ak nangam xam nga rek moom nag bi mu wësina ne ndeysaan yàlla dogal keneen kiy wësin ci wetam ñu réewle leen kenn ku ñu ne uufa sa doom bi kenn ki ñëwee ki tëre di tëdd ci doom ji. doom ji faatu mu yeewu gis ni moom ko tëdd na ci doom ji doom ji faatu na te xamul lu muy ay mbokkam mu daal di jóg ndànk seet waaye ki sant sàmb te sàggan moom itam nelaw ni ngàmm ngàmmaaral mu daal jël doomam jiy dund uufal boppam jël doomam ji mu rey dem uufal ko keneen ki sant ki sàmb ah kooku yow gis ne de liir bi daa dee mu xool waaye xàmmee ku jur xàmmee xàmme na doomam mu xam ni kii du doomam mu xam ni kon kii moo jël doomam di di dee jël doomam ji dund sage-femme yi ñëw ñu coow coow lu ñu kur ñun dañ dem tribunal coow lu ñu combay dëkk bi journaliste yi jël ko yóbbu ko fu nekk ñu ni ko nañ dem ci yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam mu àtte leen ñu ñëw ci yonent yàlla ñëwee ah daar kàlla Suleymaan laaj leen kii ni ko maamam doom ji kii ni ko moomoo doom ji kii ni maam doo coow li ne kur mu leen def leen ndànk xam nga nu ñuy def euh, wutalil ma jaas yi ngeen indil ma liir bi fii ma xar ko ci digg bi su defee ngay jël ki sant siise jël genn wàll gi ki jël genn wàll yéen ñëpp ngeen bokk ci yem noonu gën ka nga xamante ne moo sant siise nga xamante ne moom la doomam woon mu waaw kañ yow mi yaa mën a àtte nag nañ ko rey ñun ñëpp ñu bokk ci yem ki sant Samb daan ah, dëgg yàlla man moom bu ci rey naa ne des ma bàyyi koog moom ay xam naan doom sama dooma man nag du ma ci reyante moom. Sëñ Talla Souleymane daan ne kon jëlal xale bi nga jox ko kii nga xam rey ko ndax ku jur yërëm yow mi bëgg ñu ko nag yow yow sa doom dee doxal fële gis nga atte yi xekma yooyu ak atte technique yooyu moom la Yonent Yàlla Souleymane daan atte sunu góor ga ndeysaan arif billahi ba bu baax ka Seex Sëriñ Xaadima Jaxate Kala yaa fa la dégg ci Oustaz muy joxe ay at yu technique yoo xam ne daf ko daan def moom Xaadima Jaxate Kala dégg naa yenn waaye dafa sàcc sabaarub dugub dugub ba ñu yóbbu ko ci tribunal bi maan dugg si ndaka ñaari gars yi dugg si rek ah waa kii at bi kay leer na ñu ne ah nu mu leer mu ni ki sàcc dugub bi kay ñax yaa ngi ci boppam bi rek waa ji commencé fa xas bopp bi mu ne ko yow fayal dugub bi jaamul yaa ko sàcc ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni macha allah sunu mag ñi dañ ko daan doxal xam naa ni mbokk yi dañu teg foofu suñu baaraam ndax waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu suñu soppee yëpp di nuyu suñu am di jàmm yëpp di leen jox dig baaraam dig baaraam incha allahu ajjuma jee ñu jëm seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la ci waxtaan wi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.